fini avec Yewwi ou est-ce qu'il va encore cheminer wala mën nañu xaar mais mais amatul Yewwi yi amatul xam nga Yewwi lan la woon yi lan la woon politique doxoon na ba jëmmi jamono xalifa sàll ak ñeneen ñu mel ni moom ak waa parti li desoon ci PDS soxla woon Ousmane Sonko pour mu nekk seen porte étendard maanaam nekk seen drapeau pour ñu mën a dem ci élection locale ak élection législative parce que ay yéwén nag moment boobu ñu nekkoon Ousmane Sonko moo yore woon bës bi loolu mooy dëgg bi gars yi nekk ay politiciens yu xereñ xam ni Ousmane Sonko mi moom moom vent ñu xam ni bu ñu langaamoo ci moom. dinañ am dara mën nañoo am ay maire am ay président de conseil départementaux am ay conseillers locaux am ay conseillers communaux am ay députés ñu def ak moom coalition Ousmane Sonko ñëw jiite campagne bi nekk ci kanam ñu gañe bañ gañee lan moo xew bis ba njëkkee gañe la coalition bi tas. parce que dañoo gañee rek waa wàllu taxaw ni ñoom te wàllu ba bi ñuy dem ci législative bi opposition lañ bokkoon de dañoo gañe rek ñoom ñu ni ñoom ak ñoom Ousmane Sonko Khalifa Sall ak yooyu du ñu bokk ak ñoom groupe parlementaire kon xam nga fa la yëfa tase ñu bàyyi nañu àndaloon nga xam ne ñoo leen mayoon doole ba ñu gañe ay député bàyyi leen fële dem créer seen groupe parlementaire boo xam ni c'est pour soutenir Macky Sall parce que yooyu ba mu fa bañ fi bañ fi nekkee ba léegi ñoom ñooy njëkk a voté sax teg si yi Macky Sall indi ñoom ñoo koy njëkk a voté waa Benno Bokk Yaakaar kon xam nga yëf xam nga yëf yi kon teel ñu dem tuuti élection présidentielle du jub si Bart wax ak Sonko waxi politicien yoo xam ni tey boo xoolee li xew dangay xam ni Batt amoon na dëgg. Batt da ko yey. da ko ah mais parce que li mu ko wax lu leer la nguur gi mënuñu koo jël ci mbedd mi boo ko naroon jël ci mbedd mi sax armée bi moo koy fokkati say loxo comme léegi mënuñoo jaar foofu ba jël ko nañu waxtaan nga xam ni Macky buy dem du ñu yóbbaale mais loolu. Maymuna ñaari nit buñ seqee mbir di ko xëccoo man ak yow bu ñu doon xëccoo benn affaire ñaar rek a mën a xew ma ëpp la doole dóor la nangu ko wala bokk ëpp ma la doole ma toog ak wax ak yow naxante ak yow ba nangu ko wala du loolu comme yow jéem nga li nga mën def yépp le 23 mars jaar na fi yeneen date jaar nañ fi yàq yi bari na waaye Macky Sall gi nii toog dara xewul doo wax ak moom bref. dialogue ba la ca xew xam nañ ko baat génn ni waaj daf maa waxloo ba pare taxaw naan mosumaa waxloo et cetera fekk boobu comme ni ko bindee ci livre bi moom Bart ak xalifa Khalifa mosu mosuñoo noppee wax ak Macky Sall loolu mosul am c'est-à-dire que fii da xaaral ma expliquer la senegaal ba mu jeex ma wax la lu lu gën a dee kenn kese kese moo mosta wax ak Macky Sall nii directement nii par personne interposée muy Ousmane Sonko amul keneen amul fii Sénégal amul adversité ci politique amul c'est pas ça amul c'est faux xam nga guerre bay xeex bi lan la bu làmp yu tàkkee caméra yi fii mais guddi ak WhatsApp yi ñëppay wax. ñëppay wax mais looloo fi ne déglu rek donc. ñu ne am seen problème mu candidature dem rek la ko ci suuf ñu leen bon d'accord mais da ngeen ñëw ci dialogue bi ñun dañuy dem ci dialogue Ousmane Sonko di dem ci dialogue bi mais ñu ni ko fa ñukk ni yàq bu naqari dem ci dialogue bi régler seen problème candidature mais bañ ko régler la yeewu jeex. ah mais yeewu jeexul. ah mais yow. ñi fa ñi fa ñi fa des nag ce sont des partis respectables ah, mën naa la jox benn kii le tous les députés là de yi bokk ci Sonko. bi ñuy voté loi bi pour pour amnistier Karim Wade pour en pour que Karim Wade ak Ousmane. ak Khalifa Sall mën a nekk waaw mën a nekk candidat lan lañ voté. parce que déggootuñu. non non lan lañ voté. non. waaw kon yeewi amatul ay sëñ bi yeewi lan mooy lan lan mooy yeewi. ñoom Habib Sy ñoom Aïda Mbodj ñoom Malick Gakou ñoom mais c'est des c'est des chefs de parti bàyyi langue euh, bàyyi langue de non du langue de bois. Cheikh Tidiane Youm du plus. wuy ma wuy ma xaaral ma wax la coalition boo gis dafa am ñu koy incarné waxuma ñi ci des mënuñu dara wala ñu dara de waxuma loolu mais coalition par exemple Benno Bokk Yaakaar de tout temps ñetti figure la Macky Sall Ousmane Tanor Dieng Moustapha de la même façon yeeyu askan wi xam nga ñaan la Ousmane Sonko Khalifa Sall Barthélémy Diaz bu la ci kenn xoolal coalition boo gis dafa am ay nit yu koy jëmmal. Ousmane Sonko Khalifa Sall. ak Barthélémy Diaz. Euh, déglu déglu rek ma wax la dégg xaaral waxuma ne ñeneen ñi. le pur waxuma ne ñeneen ñi non pur moom boo déggee li sëñ Moustapha wax. waaw ah. nga mën a dégg waxuma sax nga mën a analyser politique. dangay xam ni li ko naqari ci yeew yi bari na dangay wax te pur moom bu génnee pur sax moo fa desandi mais pour bu génnee lan moo fay des parce que Pastef rek moo fay des parce que ñooñu ci des c'est des soutiens de Pastef peu ou prou jeex na c'est tout moo tax man la yeew yi amatul tur bi moo fi des mais yeew yi jeex na